Euh, di fas yéene leeral ñi nga xam ne kilifa yi nga xam ne dinañ fi jël kàddu euh, sëriñ Maxtaar Tafsir Diop dana fi jël kàddu bu noppee ñu jox suñu maire Malick Fall bu noppee ñu jox waa délégation Sarsara sëriñ Aliou ak sëñ Bàcc Njing bu ñu noppee ñu jox sëriñ Modou Aïssa Mbacké moom Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi fi bàyyi ko yàggul dara te di ko ñaanal Serigne bi yokk ay leeram te taasuñ ci barke euh, Serigne Modou Aïssa Mbacké moomee euh, dana fi wax ci ndigalal Serigne Bass Abdou Khader Mbacké jaarale ko ci euh, Serigne Abdoulahat Mbacké Gaynde Fatma mi jiite comité d'organisation bu Magal Touba bu sëñ ay sa Mbacké noppee Serigne Cheikh Fall jëwriñ Serigne Cheikh Fall dana jël kàddu bu Serigne Cheikh Fall noppee ñu jox Serigne Abdoul Hakim Mbacke mu wax te ñaan kon ñu jox kàddu gi sëriñ Makhtar Tafsir Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi tàmbalee suñu kàddu ci sant yàlla bu baax mu may nu fekkewaat kon alhamdulilahi rabil alamin fekkewaat gi du suñu ngóor a waaye ñu fekkewul it seen ñàkk a fekke du seenu yaa fos waaye xanaa dogal bi yàlla la kon ñu ngi sant yàlla di ñaanal ñi daw la yàlla leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla jéggal noo ngi julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ngi jaajëfal Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi di ñaan nag sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa yàlla na fi doole yàggal lool lool lool te yàlla na ànd ak wér ba li mu nekk jiite ñëpp lépp luñ naaloon mu mottali ko ba sumb naale boppam te mottali ko lépp te ñu ànd ko ak moom noo koy ñaanal itam njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp di ko ñaanal mboolem kilifa lislaam fu ñu mën a nekk bu loolu jàllee noo nuyu kilifa gétaay bi muy Serigne Abdoul Hakim Mbacké di ko ziyaara bu baax di rafet di taxawaayam di ko ñaanal mu yàgg fi lool di yéegal nag nuyoo boobu ci ay kilifa sëñ Mouhamadul Fadel mi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa sëñ Tubaa teg ci loxom di ko yéegal itam ba ci kilifa gu tëdd muy sëñ Tubaa sëñ Muntaxa sëñ Abdou Hakim ñu ngi lay baax di rafetlu sa teewaay ñoo ngi nuyu itam kilifa yi nga xam ne ànd nañoo moom yëpp sëñ ay sa ak euh, Serigne Cheikh ak mbooleem yi nga xam ne daal kilifa yi nga xam ne teew nañ fi yëpp di nuyu itam monsieur le maire di nuyu itam Serigne Moustapha Gueye di nuy mbooleem ñi fi teew ñëpp di ay kilifa wala ñu ay notable wala ay. kilifa yi àdduna di nuyu baax di siyaar sëñ Cheikh Fall ak mbooleem kuréel bi nga xam ne ñoom la àndal te ñu taxawal bis bi di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay di leen ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm leen yàlla yàlla aar leen yàlla yàlla nangul leen liggéey bii yàlla nañ ca dajee ngërëma seen Tuubaa ak ku leen ci wis gannaaw loolu itam suñuy kàddu dañ koy jëm rek dañ koy jëmale rek ci fàttali ay tomb yu néew ci taxawaayu Serigne Touba ci alxuraan xam ngeen ne mbooloo nii nos lii taxawal lii ran dañoo waxoon ne bis bi dañ ko bëgg a jagleel alxuraan ba sumboon ci ay sumb yu waaye gannaaw bi ñu xam ne dana xate ñu waxoon ma it naa fàttali ay tomb ci euh, taxawaayu Serigne bi ci alxuraanul karim ma di ko tàmbalee ci di wax ni Serigne Touba radiyallahu anhu wa nafaana barakaati ku bëggoon alxuraan la lool. lool mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu tar la woon moom rek moom lañ gisoon ci koo xam ne daana jël ay kaamil alxuraan di leen teg ci kaw lal di jël loj ko lañ di gën a seer di ko jox sotti di ko tagg tagg yu yëkkati te loolu gisoon nañ ko rawatina fii ci njaareem bi sëñ bi ñëwee njaareem sanc kër gu mag gii nga xam ni amoon na la ma juróom fukki kees kees gi nag amoon na néeg bu yéeme lal bu yéeme waaye lal boobee alxuraan la ca daan teg di fab lëkkaleñ yi gën a seer te gën a neex di ko di sot di ko tiim nag di tagg taggam yëkkati ko yooyee yaa kitaabal karimu anta habibi yaa kitaabal karimi anta habibi waxali lii waxab la kunta tabibi di ko tagg naa ko yow téere bi yàlla bi yaay sama xarit yaay sama docteur yaay sama soppe yaay sama docteur itam di ko wax ne ko anta azzi wa mafxari anta jaayi anta kanzi yaa faxa kullala bii bii yaay sama tedd nga yaay sama ndam yaay sama daraja yaay sama ndam yow yaay sama li nga xam ne moom lay pokkare waxtu yaay yow yaay pokkare waaye képp koo xam ne ko ànd xelam lay doon kon loolu bokk na ci taxawaayu Serigne Touba muy taxawaay boo xam ne ci moom rek lañ ko gisoon waaye bokk na ci taxawaayu Serigne Touba ci téere bu yàlla bu tedd bi di alxuraan sopp koo xam ne soppan na ko képp koo xam ne ku mën a alxuraan karim yi xam ndaw la ak lu mu tuuti tuuti ay at di leen màggal lool ñi nga xam ne ñoo mën alxuraan karim daan leen tere itam daal leen jox alal ju bari waxtu wu nekk donte ñu néew ay at la ñu doon ci saayir waaye bëgg ngi mu alxuraan tax na ba dootul xool at yee dafa defe ni day jàpp ne ñooña seen tànk moo tuuti waaye ñooñu ay mag lañ loola bu ñu ko toppoon ay xese am solo lool dana ci gën waaye bokkoon na ci taxawaayu Serigne Touba ci téere bu màgg bii di alxuraan karim Serigne bi ko ràññiku woon la ci xir gum xiroon ci al alxuraan karim ca mokkal ga ca bind ga ca dajala ga ca teral ga ca sàmm ñëpp ñi nga xam ne ñooy waram alxuraan ya ak jëfit attay téere boobu di alxuraan karim jeexaloon dundam gépp moom sëñ Tuubaa ci liggéeyal alxuraanu karim jàpp ne loolu sax mooy koom mi nga xam ne du jeex mukk jàpp ne loolu tam mooy ndono li nga xam ne lu fi du jóg ba lay doon daan wax ni xiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni sa saq mooy sama ndàmb mi nga xam ne du jeex mukk mooy sama daraja mooy sama tedd nga ci laa amee jiitu gi nga xam ne jiitu naa ko fa yàlla loolu tax na ba bi sëriñ bi tàmbalee liggéeyam bu sell bi bi mu tàmbalee di woote ba nit ñi wuy ko alxuraan amoon na taxawaay bu rëy nekkoon na ponk bu am solo ci liggéeyam boobu te mooy tàggat gi mu doon tàggat murid ak yar leen muy yarub ruux tax na ba daan wax na kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilawatan li xayri zikrin xadrusim képp koo xam ne ba nga boo xam ne da nga aju ci man sëñ Tuubaa na nga sax ci di jàng alxuraan téere bi ngeen di téere boo xam ne bu ñu bind la. ni a jël ay kàddu waxoon waaye xam nga moom bala sant daal yorul waaye bu Manifa noppee sëriñ Moussa Fage directeur général bu Kourous mooy jël kàddu boo ñu noppee nag doo yegg la